info actualité sport en temps réel sur Info 2S TV abonnez wallaahi watallaahi combat bi buñ ko gañewul combat bi bu ko askanu Sénégal gañewul noteel gi ak moomeel gi bu ko Sénégal gañewul bii mooy sànni tàccu bi na leen leer ne la Sénégal est foutu yéen nag moom lii ngeen ñu mënal lii ngeen ñu mënal génn jàkkaarloog askan mi nga xam ne yéen a war a aar seen kaaraange. yéen askan wi ngeen fi war a nekkal ngeen génn jàkkaarloog ñoom di dàggasante ñoom naan yaa ma ko baa ma li ngeen wax amul li ñu wax moo am yéen Antoine Diome jaar na fi lépp lu mu wax ñu teggi ko teg lu mu wàq ñu suul yéen na ngeen toog jàkkaarloog yéen yeux dans les yeux naan euh, diw rayul ñun ñoo ray kële rayul ñee ñoo ray yéen yàlla moo leen weer fii amul lu ñuy miim image yi ci boppam ñoo wone seen bopp ne ngeen 16 morts moo am. 500 personnes la ñu arrêté am na ñu dégg wolof am ñu déggul wolof am na ay étrangers Sénégal dafa warta am ñu déggul wolof yéen image yi leen wone jël doomu aadama teg ko ci kanam policier ñu ciy sànni xeer kooku bu dee kan moo ko waaye yéen bu ne pas. info actualité sport politique information en temps réel sur Info TV abonnez